La Sainte. Bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie La Sainte. mbokk yi yéen a ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun restaurant ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 lépp li xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer من قبل suukar bekk wala suukar su moo ko tey tànn sa bu la neex la ci l'observateur journal bi xëy na saf-sàpp ak suukar bay li déeku ndax waxi suukar su mu xëyee defarkatu suukar bii di Jean Claude Mimran borom compagnie sucrière sénégalaise moo nekk ci page 4 ak 5 bu l'observateur Mimran nee na fa ci fukkat yi ñu génn investir na ñaari téeméeri milliards ak ñaar fukk nee na ci Sénégal tegu ñu leen ci ambiance bu baax bu leen mën a may ñuy defi investissement ni ñu ko bëggee suukar si ak jafe yi ci am Mimran bu ñu ko bëggee régler faaw dañuy dakkal di importer ji suukar si ministère du commerce bàyyi li muy def mu di ku jug mu jox la ab dippa ñu dem ci Walf Quotidien fekkaat ko fa moom Mimran jafe-jafe yi muy jànkonteel ci ndefarum suukar ci réew mi la fay wax nee na def na ñetti at ci ginnaaw xaalisu boppam bu nekk ci kontam ci Suisse moom la demoon jëli ngir mën cee fay ay salaire ak ay fournisseur mu ne ay at a ngi compagnie sucrière sénégalaise amul ay dividende yu mu mën a ak ay actionnaire Mimran ne mënee suta jël ay milliards bëgg cee développer ay emploi mi di Sénégal a soxlaa ci suukaru kenn kenn ki ba compagnie sucrière sénégalaise mi ngi wàcc ci le quotidien yëral xët mu njëkk journal bi nee na fa su ministère du commerce dakkalul dépas yi muy wër di joxe danañu xëy bés compagnie sucrière sénégalaise du am lu mu fay ay liggéeykatam cessation de paiement mën na am saafara dëgg journal La Tribune nee nañu moo di li góorgóorlu yi ci réew mi di xaar ci kilifa yi jiite réew mi ci jafe-jafe yi sëkkatal askan wi yi ci gën a fës bokk na ci ñàkko kaaraange gi ñuy dund ci réew mi am am gu néew gi am ci dund gu seer gi dund gi ak ay njëgam yu seer vox populi nee nañu tàmbali naa xajamal xaat koor gi te dara boole ci kenn tegi gët seeni gët ci la Sénégal journal bi mi ngi ñuy xibaar ne député ya war a nekk ci assemblée nationale seenub lim dana yokk dinañu jugee ci député dem ba ci député journal bi nañu mbir la mu ñu waxtaane ba juboo ci ca réunion ba ministère intérieur Antoine Félix Diome woote woon journal Les Échos di ko dëggal ba di ñu xamale juróom-ñaari député la ñu fas yokk ci limub député ya ci assemblée nationale assemblée nationale googee leen moo yàq débat ya honorable député Abdou Mbacké Dolly wax na fa ne il faut que bi dañu koy encadrer bala muy may góor jigéen yoon wu ñu mën duggee ci réew mi député ay miru ñi ngi dugg ca débat ba ba wax ca ne góor yàlla dëgg du toog di wax ci waxi góor jigéen député beneen bu ca wax di maître Djibril War li mu ca wax mënuma caa jaaraat waaye bu ngeen xoolee xët mu njëkk Les Échos gis ko fa ñu wax ci leneen mu di élection législative yi ñuy séntu lam ak bokkam ci élection législative yi sursoi nee nañu dana ca bokk ki war a jiite seen liste bi di Ousmane mi ngi ci xët mu njëkku la mandat moom ak xale bu jigéen bii di Adji Sarr yéenekaay bi bind ne seen coowal massage la woon ci Sweet Beauté moo yëngal république bi jamono ji audiop Mamadou Mamour Diallo bi ñu ne moo fuité ci mbiri maître Ousmane Seye mi ngi koy càmbar ak a jàngat ci Vox Populi maître Ousmane Seye nee na du preuve tangible ca kanamu waaye mën naa influencer xelu askan wi askan wi xaar lambi rëg-rëg ak Sa Thiès nañu xam ne lambu jee tàmbali naa neex tàmbali naa jax yëral xët mu njëkku sunu lamb rëg-rëg moo fa tàmbalee dóori misil sol sol te dara xewul rëg-rëg nee na boo boolee fukki Sa Thiès maa leen mën mën naa ko jàngal bëre te bés bu ma jàkkaarloo ak moom duma ko may dara Lassin bienvenue au restaurant fast food la Lassin mbokk yi yéen ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko joox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi 78 132 97 97 78 132 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Gorgny Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bii di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer.